mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax ci seen rajo Rewmi FM kom ni ngeen ko xamee rek li nga xam ne moom moo jëm ci matu Sénégal bi moom moo daal di tax rek ñu daal di décoller et décaler émission gox bi nga xam ni nag mu faral di amoon 16h di félicité ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di gaynde yu Sénégal rek ci ndam li nga xam ne nag am nañ ko fële ca Guinée Bissau Jacques Matar Gomis ak équipe am déglu ngeen leen ci li nga xam ne moom moo jëm ci direct émission bi ak wax tamit am beneen bi nga xam ne moom moo am ci monde làmb génn àdduna ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye di ñaan yàlla rek euh, yàlla xare ko àjjana ci sama tour euh, ci tour président directeur général bu réew mi côté réew mi point com réew mi quotidien réew mi fm mu dee laaj Mbagnick Diop di wax rek ni yàlla na ko yàlla xare àjjana tey suñu plateau ñu ngi fi war a dalal ki nga xam ni moom moo di Mayakor Diouf Mayakor ñu ngi lay euh, gërëm di la sant ci sa teewaay fii ci rajo émission rajo réew mi fm voilà donc maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp mhm. di nuyu auditeurs euh, Rewmi FM yëpp. 97 mhm. point 5. Mhm. Euh, di la nuyu moon ami mon frère euh, Bemba Dramé. Mhm. vraiment di. yaakaar ne ci waxtaan bu ñu war a jublu. Mhm. Euh, Sénégal yëpp nañ ci jëlee véritablement ndam. Mhm. Euh, di nuyu ma jël ci occasion bi di nuyu waa département Foundiougne yëpp. Mhm. di nuyu waa commune bu Toubacouta di nuyu askan bi yëpp. alors dañ koy dooree rek ak euh, gaal bi nga xam ne tey moom moo xaw a explosé fële nga xam ne nag ca waaxu Toubacouta yow fa nga dëkk sa commune la tey ba nga déggee loolu ban jàngat gu njëkk nga si am ci wàllu wi ni mel. naqar actrice laa ci am. <laughs> donc euh, di wax Sénégal yëpp ne. Mhm. Euh, comme ni ko gars yi xamee ci jours yi yëpp di ñu ñu weesu. Mhm. Euh, problème bi mooy le problème en tout cas la problématique de l' immigration clandestine. Mhm. xale di jël gaal yi di dem Europe. ñun suñu zone boobu zone bu am lul la. Mhm. bëri na fa bari na fa lool. donc li am tey nekkul mbetteel ci ñun. Mhm. donc euh, yàgg nañ di ko di ko dund. Mhm. donc mën naa wax ne village yu bëri foofu ñu ci gën a bëri vraiment perte nañ ci seeni seeni ndaw. donc loolu su amee tey aussi ah, dañuy xam ne suite logique la. Euh, politique publique yi ñu war a def pour ndaw ñi. Euh, pour ndaw ñi mën a toog moo des. donc pour état bi mën a régler situation boobu. il va falloir forcément que ñu changer. en tout cas euh, investissement yi ñuy def ailleurs. Mhm. ñu investir ko pour la jeunesse. Mhm. et dans les zones les plus impactées. Mhm. donc ñun ci la ñu bokk département fu ñu yëpp ci la ñu bokk parce que soo demee dans les îles du Saloum. Euh, soo demee commune bu Dionewar commune bu Bassoul. commune bu Djirnda. zone yooyu yëpp c' est yoo xam ne. nit ñi aussi dañuy jël gaal yi di dem à l' étranger. ñu ci gën a bëri dañ ñu yegg dañuy dee ci géej ci géej gi. donc loolu vraiment. phénomène bi am na fa doole kon. lool lool lool tey suñ mhm. doon jël suñ doon jël en terme de département des plus impactés. Mhm. département fu ñu su jëlul premier jël deuxième. Mhm. parce que soo xoolee les îles du Saloum comme ni ma ko waxee nga ñëw la commune de Toubacouta Foundiougne et cetera. Mm-hmm. donc c' est des communes yoo xam ne jeunes mm-hmm. pratiquement amuñu ci lu ñu gën a jàpp. Mm-hmm. tey soo ñëwoon dugg Toubacouta tey. Euh, li ñu lay njëkk a accueillir mooy euh, antiquaire. ak moto dawalkatu moto Jakarta. donc loolu xam nga loolu c' pas des en tout cas métiers yoo xam ne peut mun na mun a tax nit yore njaboot bo de sorte que dootoo xalaat dem à l' étranger. précarité liggéey boobu nga xam ne moom lañ ndaw yi ndaw yi yor. Mhm. ndaw yi am. Mhm. moo waral nit yi en général dañuy foraatu di denc di foraatu di denc ba mu mot ay trois cent à quatre mhm. ñu dugal ko ci carte. est-ce que itam bu ñu foraatoo trois cent quatre cent xaalis boobu mënuñu ko utiliser ci yeneen jumtuwaay yi nga xam ni jël géej gi. justement mën na nekk. justement mën na nekk mais soo xoolee ñun. Euh, depuis les années 2006. Mhm. fléau bi mu commencé juddu ba léegi am na ñoo xam ne dugg nañ ci gaal yi dem nañ à l'étranger am nañu kayit ñibb si tabax nañu jënd nañ ay oto. Mhm. donc tu vois ce que ça lool mhm. de telle sorte que dañuy wax ne lii daal mooy solution bi. solution bi mooy nga fexe nëpp loo am su amee nag sax nga jaay wala euh, seen seen nu xam nga gaay lu ñuy def. seen suuf si nga xam ne seen parents moom lañ leen bàyyi dañuy dagg jaay benn lu am la c'est des yoo xam ne ñu ngi ci département bi. Mhm. ñeneen ñi soo demee dans les îles. Mhm. ñu ci gën a bëri ay pêcheurs lañ. ay pêcheurs lañ mais li ñuy foraatu ci pêche boobu suñu demee ba loolu amatuñ ci yaakaar dañuy dajale lépp dem. mais ministre bi dàq na loolu de. non loolu ministre baa ko dàq mais ñun dàquñu ko ñun ñu naan ay acteurs lañ. dëkk ak nit ñi. Mhm. ñun mënuñu ko dàq. non mais ñu bu ñu waxee ci wàllum est-ce que loolu war na tax tamit ba ndaw ñi tey di pousser di dem di di dee ci géej gi nii doy na waar quand même. na doy waar ba mbaa mais mhm. yow mi nga xam ne peut-être yaa ngi Dakar. Mhm. wala nit ki nga xam ne mu ngi Dakar. Euh, peut di gis loo xam ne en général dina yore njabootam wala dina foraatu loo xam ne peut suba du am yaakaar ci kenn du ñu du ñee nit. Hmm. mais soo ñëwee sur le terrain di xam ne vraiment différence bi dafa rëy. Hmm. donc man ministère la jeunesse laay interpellé dans un premier temps. Hmm. parce que ministère la jeunesse tey ñoo yore Prodac. ñun soo xoolee tey dans dans le département de Foundiougne ou région de Fatick benn Prodac la am la am benn DAC. c'est le DAC du nekkul réalité. jafe-jafe la foofu. jafe-jafe bu rëy. Mm-hmm. léegi euh, yéen tey euh, li nga xam ni moom moo jëm ci seen commune fu Foundiougne Toubacouta jëm ci yeneen village yi nga xam ne tey wër tey lan moo tax tey jafe-jafe yooyu ngeen koy dund yow lan nga jàpp ne lan moo waral jafe-jafe yi ndax dañ leen fàtte ci wàllum investissement wala ci wàllum projet pour développer dëkk bi ndax dañ leen xaw a bedd ci mbir mi. justement moo tax tey sama invitation tey. dafa mm-hmm. am ay casquettes. Euh, casquette bu njëkk bi mooy la PEDIF. Hmm. mooy la plateforme départementale pour la défense des intérêts de Foundiougne. lu ko sabab bi nga xam ne moom laa la jox léegi jox mémorandum bi laa la jox léegi. Hmm. mémorandum bi ma la jox nii. Hmm. président de la République en personne jot na lan moo sabab tey lii. Euh, lan moo tax ngeen créé ko. merci beaucoup li tax ñu créé ko mooy ñun dañoo. toppoon son excellence le président Macky depuis ses les premières heures de sa sortie en topp yàlla suturaal ñu ànd ak moom ñu gagné les élections euh, ñu muñal ko sept ans buñ ko muñalee encore deuxième mandat mu mu laaj ko ñu muñalaat ko yàlla tax ñu amaat ci ndam mhm. je pense que kooku tey moo waroon gëstu notre département bi nga xam ne foofu la defee ndawam à Foundiougne mhm. bu mu ko defulee nag ñun ñu ne nekk fu mu nekk nii ñun ñëpp nous sommes de la coalition mhm. la la grande majorité présidentielle mais nañu nag wax li nga xam ne moo manqué entre autres projet mhm. yéen yëpp dégg ngeen ne yaa ngi tudd léegi ministre de la pêche. Mhm. am na benn projet bu rëy bu koy xaar dans le département de Foundiougne mhm. le port de Foundiougne ndax nga. port boobu depuis lañ ko inauguré. bu ñu ko inauguré léegi c'est combien d'années ba tey mënul opérationnel. te foofu yaakaar nañu fa xale yi mun a am ay contrat de travail xale yi mun faa liggéey te xale suñu fa doon liggéey peut-être dina wàññi tuuti. Mhm. émigration clandestine on a am nañ alternative yoo xam ne tey su fa su opérationnel woon dans le département de Foundiougne am nañu yaakaar ne mënuñu wax ne du euh, émigration dina jeex mais dina wàññeeku dans le département de Foundiougne. Mhm. Mhm. Euh, par le port. le port de Foundiougne bi nga xam ne Ndaxo nga lay war a nekk. gis nañ Euh, ñetti campus la El Hadj euh, kii université El Hadj Ibrahima Niass la bokk. Mhm. mais université El Hadj Ibrahima Niass trois campus la am bu Kaffrine léegi mu pare bu Fatick léegi mu pare mais bu bu ba léegi. laalu ko ba léegi laaluñu ko. justement soo rombee foofu yaa ngi euh, garab yi ba léegi kenn laalu leen. loolu xam nga du campus boo xam ne tey mun na nit mun na ci am espoir pour toog xam ne yaakaar ne suñ ko ubbee dañ fa mën a liggéey. Mhm. am na également. Euh, comme ni ma ko waxee la le le DAC du Ñombaato mhm. ma wax sànq DAC mhm. boobu ba léegi euh, gisuñu ko mhm. au-delà de ces de ces choses là également euh, mun nañ ci greffer le problème de l'eau ndox mi sonal na leen sonal nañu bu baax tey Foundiougne bi nga xam ne mooy capitale <laughs> mooy capitale départementale amul amul ndox ah donc c'est des chose yoo xam ne vraiment président président de la République kese moom kese nag lañ ci yaakaar yaakaar ñu jàpp ni dañoo fàtte seen gox bi justement dañ ñoo fàtte loolu moom lu lu lu lu wér la nu ñu fàtte sax mun naa wax ne ëpp na parce que xoolee également Euh, yoon yi yoon yi. ñëpp infrastructure infrastructure routière xam nañu ne. Mhm. lu am lu am solo la ci dëkk. tey euh, je suis au regret de dire que soo duggee ci département Foundiougne vraiment am na am na commune yoo xam ne mhm. euh, am na benn commune boo xam ne sax tali tali amu fa mhm. c'est la commune mhm. soo gisee soo ñëwee également suñu suñu commune à Toubacouta euh, tali bi nga xam ne douze kilomètres la Toubacouta Missira boobu beaucoup d'années ñu ngi koy ñu ngi koy xeex boobu léegi gisuñu ko soo demee Nioro Alassane Tall Saloum Diané Toubacouta aussi tali boobu tali bu gudd la trois communes ñoo ko seq mais ba léegi rang rang la taw taw ren bi lu mu bëri bëri dagg na pont bi eh, pont bi nga xam ne moo nekk ci village boo xam ne mu ngi koy woowee kër Aliou Guèye mhm. donc loolu yëpp c'est des choses yoo xam ne mhm. euh, président la république moom kese moo ci mën a indi solution moom ngir mu mën a régler gox bi moom mën a régler gox bi mhm. soo ñëwee aussi euh, la boucle du Log Log aussi mooy ay ay mbaam euh, dëkk yi nga xam ne ñoo nekk zone mbaam yëpp tali boobu dañ ko soxla ba léegi gisuñu ko soo xoolee Djilor hmm, la commune de Djilor foofu aussi vraiment l'axe Djilor Sokone mhm. Djilor Sokone tali bi mhm. jógee Djilor dem ba Sokone mhm. boobu aussi euh, ba léegi kenn laalu ko je vous dis hein, en termes d'électrification rurale gis nga président bu mu ñëwee dans le département bi passé ci la jor a yëg ne commune bu Niassène commune amul lampe lan la ci wax. justement ci la joxe instruction ñu ngi commencé euh, branché dëkk bi. Mm-hmm. donc euh, chef lieu bu commune bi ak euh, trois villages ñu ngi leen di commencé mm-hmm. mais donc loolu aussi vraiment mm-hmm. début de solution la. lan lan moo waral li nga xam ne moom moo jëm ci revendication yi yëpp njiitu réew mi jotu ko. ndax da ngeen jàpp ni autorité yi nekk foofu ñoom ñoo dul yeggale message bi wala. waaw loolu moom foofu moom euh, am nañu yaakaar fu mu nekk nii ñun président kese lañ amal lañ amal confiance. Mhm. moom kese lañu war a waxal autorité yi nekk foofu. bëri nañ autorité yi nekk foofu. mën nañ ne ki nga xam ni moom moo di député maire. Mhm. bu Toubacouta. Mhm. moom tey normalement est-ce que nekkul di porter plaidoirie bi au niveau de l'Assemblée nationale est-ce que tey yéen itam. am ngeen retour ci loolu. Euh, foofu moom je pense que duñ ci sori. duñ ci sori parce que ñun euh, xam nañu voies yi ñu war a ñu war a emprunter. Mm-hmm. te voies yooyu la ñu topp euh, je vous dis keroog bu ñu defaree mémorandum depuis le novembre mhm. bu mu personnellement man maa ko déposé la présidence la République dossier bi dañ ko imputé woon le cabinet politique du président. Mhm. donc ils nous à deux reprises donc cela veut dire que ñun fu ñu war a teg suñu tànk ñu ngi ko fay teg keneen aussi su tegee tànkam feneen foo xam ne aussi. c' mhm. dans le souci en tout cas de bien faire. c' dans le souci de résoudre les problèmes du département suivre nañu temps yëpp le ministre des sports Matar Ba nous a recevoir nañu euh, le DG ASP Biram Faye recevoir nañu le ministre Moïse Sarr recevoir nañu le DG Maïssa Mayekor nous a reçu euh, récemment en tout cas le maire de Foundiougne nous a reçu mhm. le président du conseil départemental nous a reçu Latif aussi nous avait reçu en premier mhm. donc pour dire que ñun euh, beddiwuñu kenn éliminé wuñu kenn donc ñun ci dynamique en tout cas défendre les intérêts du département de Foundiougne ci la ñu nekk. Mhm. képp koo xam ne aussi gis nga ne li ñuy liggéey wala li ñuy xeex lu wër la te yow nga gis ci sa bopp. Mhm. nga ñëw dañ dañ ciy kontaan loolu moo tax aussi ma profité ci occasion bi. Mhm. féliciter remercier le maire Mbam. moo kooku au conseil des collectivités territoriales la. mais jàpp na ne Simon Diouf jàpp na ne tey ñun lu ñuy suñu combat combat bu noble la. c'est un a été élu. Euh, en tout population bi ci boppam ñu ñoom ñooy réclamer fu mu nekk nii seen du mhm. yoon la moom en tant que élu mu mhm. jóg taxaw ok 88 la mbokk yi 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 yéen itam mun ngeen dugg ci waxtaan bi bokk ci bu ko defee rek ngeen boolaa di bokk ci waxtaan bi léegi ñu jóge foofu. Mhm. tey ki nga xam ni tey moo di bokk moomeel bu commune bu Toubacouta moom tey. Euh, nit la koo xam ne mën na porter voix commune bi mun na porter itam voix département bi tey kooku noonu li ma la dégg ngay wax fii yëpp tuddoo ko dafa ndax da ngeen jàpp ni dafa am lu dox seen diggante ba ngeen beddi ko tax sax moom moo waroon porter message bi lan moo tax boolew leen ko seen seen seen seen li ngeen di def. Euh, jërëjëf Bamba mais ñun moom lu ñu def c'est pas combat de personne. Mhm. Euh, suñu liggéey euh, dañoo jàpp ne ku nekk. en tout ki nekk ci kër. Mhm. ku nekk am nga droit nga génn outil pour en tout l' intérêt de la maison. Mhm. ñun ci dynamique boobu la ñu liggéeyee ci dynamique boobu la ñu en tout cas organiser woo joxante loxo. Mhm. gis ñu nekk ci plateforme bi yëpp. Euh, ku nekk sa commune nga jóge ku hmm. nekk responsable bu am solo nga si commune bi nga nekk hmm. donc ku nekk mënoon na toog à à ton niveau nga liggéeyal sa bopp hmm. mais dañoo jàpp ne nañu dañoo war a boole force yi en tout cas mu gën a am doole pour l'intérêt supérieur pour le département de Foundiougne donc que que que ñu beddi kii wala ñu beddi kële ñun nekkuñ ci dynamique bi beddi kenn mais nag ci dynamique bu ñu nekk mooy dynamique organisationnelle boo xam ne dañuy xeex pour l'intérêt du département képp koo xam ne gis nga ne ñun lu ñu liggéey bëgg nga ko nangu nga ko. Hmm. mais jox naa la l' exemple du maire de Mbam tout à l'heure jox naa la l' euh, du du maire de Foundiougne. Hmm. en personne. Hmm. qui nous a reçu récemment à la caisse de dépôt consignation donc am na ñoo xam ne. gëm na nangu nañ jàpp nañ ñun ci yoon bu ñu nekk yoon bu sell la set la. Mhm. dañuy jàppale ci liggéey bi ci orientation ak ci accompagnement pour que véritablement. Euh, <laughs> moom du wax ne du wax ci wolof mënoo gént mënoo nettali gént gént nit. Mhm. donc li mën a li mën a xam mooy ñi nga xam ne ñëw nañu. Mhm. fekk si mais ñi nga xam ne ñëwuñu fekk si nag ñooñu moom mënuñu wax ci ñoom lu bari. te aussi duñ leen tooñ duñ leen wax loo xam ne waruñu leen ko wax aussi. ba fan ngeen jëm plateforme bi. plateforme bi bay toog ak président njiitu réew mi. toog ak njiitu réew mi mhm. waxtaan ak moom sur les questions qui interpellent directement le département de Foundiougne mhm. muy ndox muy électrification muy euh, les ponts mhm. muy les routes muy l'emploi des jeunes ah muy l'immigration clandestine euh, entre autres projets yoo xam ne véritablement il faut mu taxaw ci daar daar tey euh, ay projets yi nga xam ni mën nañ ko fa sanc seen diwaan Foundiougne Toubacouta tey yan projets yi da ngeen jàpp ni tey buñ ko fa indee dina sukkali gox boo seen gox ak goxaan yi foofu jo jërëjëf loolu am na solo. Mm-hmm. am na solo lool mais projet yi nga xam ne ñun déjà on a des projets. Mm-hmm. am na projet yu am solo yoo xam ne président euh, indi na ko fa. Mm-hmm. yooyu kese suñu leen valoriser woon rek ñun dañuy sant yàlla. jukki ci benn. le port de Foundiougne wax naa ko sànq. le port de Foundiougne. foog naa ne euh, mën na nekk euh, espoir bu rëy. pour tout un département. pour toute une toute une région sax au-delà du département de Foundiougne. mais nu ñu ko nu ñu ko parax paraxee fate ko sant sa sànni ko foofu. Mhm. ñun loolu moo ñu métti. dañ ko inauguré ba tey. 2015. 2015 mhm. nga inauguré nga inauguré vraiment investissement bu toll noonu. Mhm. ba tey ji mënul mënul am nit. loolu du yoon. mënuñ ko nangu. Mhm. nga xool également le campus de Toubacouta comme ni ma ko waxee. Mhm. campus ñun kam xam nañ campus ja université lañ jógee. Mhm. donc campus gis nañ dafay liggéey ci ay nit. donc campus bi suñ ko opérationnel loon je pense que dina mën a générer beaucoup d' emplois dans le département nga jëla nga nga jóge foofu euh, le DAC du Niombar ñun temps yële bu ñu commencé accélérer suñu combat. gis nañ Pape Malick Ndour mu déplacé wu dem euh, ginnaaw donc c' est des yoo xam ne tey euh, moom la amagum yaakaar. sur le plan de l' aussi. Euh, soxla nañu ko bu baax parce que. dafa am village yu leen wër te amuñu courant ba léegi. non bëri na. Mhm. bëri na euh, ma ñëw fi. Mhm. mais ce qui est clair en est que. maanaam 17 communes yu nekk foofu. 17 communes yu nekk ci département. courant bi dafa am fu mu sooxe. justement yu mhm. gën a bëri sax yu bëri. tey maa ngi la wax naa la wax naa la ba léegi Niassène courant bi tàkkul ñu ngi ci branchement mais tàkkul. une commune entière laa la wax de. depuis kañ yàgg na de. waaw na trop une commune entière. Mhm. amul sax courant. Mhm. am na yeneen dëkk yoo xam ne yeneen communes yoo xam ne dëkk yu bëri ci ñoom amuñu courant tey damay jël l'exemple euh, fi nga wax fi fi fi chavirement bi am tey. Mhm. Bosinkan. Bosinkan amul courant. je pense ci ay ay mhm. su ko defee véritablement courant mën a am parce que une zone très reculée enclavée mhm. nga jëlaat aussi Djinak euh, Djinak Bara Djinak Diatako mhm. ak yeneen zone dans les îles du du Saloum dans la commune de Djirnda dans la commune de Dionewar et dans la commune de Bassoul am na yeneen village yoo xam ne yu gën sori yoo xam ne dañu enclavé courant amu fa donc c'est des choses yoo xam ne on doit pouvoir les régler nekkul loo dañu war xaar logique. Mhm. nit ñi suñ la jàppalee tey suba soo ñëwee rek la war a jàppale. Mhm. ci loolu itam euh, Foundiougne département la tey am ngeen maire am ngeen président conseil départemental Foundiougne. Mhm. est-ce que tey ñooñu euh, apport bi nga xam ne tey war nañ ko indi ci gox ak goxaan yi foofu noonu. mate nañ ko. bon euh, pour le conseil départemental véritablement am na yoo xam ne def nañu ko ñun ñu gis ko. donc loolu moom je je tiens à en tout cas le témoigner. Mm -hmm. euh, parce que barke Demba rek ils ont donné beaucoup de moulins dans le département de Foundiougne. c' est vrai que moulins yi am na solo lool. ci mhm. population yi parce que ñun ñi dañ doon yenu ay ay ay ay di dem di wala wala suñu yaay. Mhm. donc c' est des choses yoo xam ne euh, suñ demee ba en deux mille vingt. Mhm. loolu ñu jël mbokk moom ci ligne bi d' abord. salaamaaleykum rëcc na. xëy na ñàkkul ni dina. Euh, ñëwaat ci dina euh, bi dañuy sant yàlla. Mhm. Euh, féliciter le président du conseil départemental monsieur Moustapha Mbaye. Mhm. mais lu ndaw la. Mhm. parce que soo xoolee soo jëlee une commune comme Toubacouta nga jox leen benn moulin à mille. je pense que métti na ñun on nous sommes à nga jël benn village jox leen moulin à mille. je pense que yeneen villages yëpp des na yoo xam ne amuñu moulin. donc c'est des choses yoo xam xam ne Euh, beneen soo demee euh, Niassène wala nga dem koon wala nga dem Karang mhm. wala nga dem ñor euh, Assantal wala mhm. saalum Diané Kër Samba Gueye c'est des c'est les mêmes réalité mhm. donc dañu war a fexe nu ñu defee ba véritablement dëkk yëpp ñu mën cee jot xam naa ne du yomb nag parce que c'est un c'est un investissement très colossal mais ñu en tout cas ñu ngi leen di féliciter ci initiative boobu tey ku ne Toubacouta yeneen village yi dinga wax mbirum mbay ndax mbay mun na suqale ko mën na suqale am réew tey est jàpp ni tey Euh, mbay moom bu fa ëppoon doole tey ñi nga xam ni ñu ci bari dinañ toog daal di bay am ci koom. am na solo euh, loolu euh, je pense que ku wax Toubacouta moom nga wax agriculture. Mhm. nga wax pêche nga wax élevage nga wax tourisme. Mhm. donc agriculture dafa nekk loo xam ne peut-être au niveau zonal. Mhm. valoriser wuñu ko. ñun euh, lu ñu xam rek mooy nawet bi nawet bi taw nga dem jiw sa dugub ak sa gerte loo xam ne moom ngay dundee. Mhm. donc ci loolu. maanaam euh, bay dund ngeen ne bay dund ci loolu lañ juddu. mais je pense qu'on doit pouvoir en mhm. tout cas améliorer. faire mhm. des investissements yoo xam ne dina permettre. population yi ñu mën a ñu mën a béy dundee ak béy dundal mhm. je pense que loolu euh, peut-être collectivité locale am na ci lu mu ci mën ak lu mu ci mënut mais on doit pouvoir chercher des partenaires yoo xam ne mhm. ñooy mën a investir ci au niveau au niveau local wala état en personne créer les conditions euh, yoo xam ne dina permettre nit ñu mën a béy ensuite mhm. euh, état Euh, zone yi nga xam ne dañoo dañu dañu dañuy mbéy mhm. dañuy béy ak doole wala ressources yi suuf si baax pour mbéy mhm. je pense qu'on pouvoir on devait pouvoir en tout cas dimbale leen su nekkee ne njiw mi wala intrant yi mënuñ leen ko may mhm. gratuitement sax parce que mais kii seen revenu lu ñu ciy dugal mu gën mu ndaw mu gën a tuuti su ko defee day permettre nit ñu am courage euh, mën a jëli intrant yi ak euh, jiw yeeg yooyu mën a investir si tool yi te yaa ngi ko wax su sànq ay dag bi ak yeneen i mbir tey au-delà de ça. Hmm. lan nga jàpp ni lan moo mën a li mën a suqali gox bi lan la. li mën a suqali gox bi ay secteur la. Hmm. ay secteurs yu bëri bu ci gën a jàmp ban la. bu ci gën a jàmp mooy l'emploi des jeunes. ok ndaw ñi. ndaw ñi ngeen jàpp nii dañu leen xaw a beddi. non xawuñu leen dañ leen beddi. loolu moom je tiens à le dire haut et ndaw ñi moom dañ leen beddi mhm. dañ leen beddi dans le département de Foundiougne et on doit pouvoir corriger en tout cas cette disparité mhm. ñun tey dañoo jàpp ne euh, ministres yi feneen la ñuy ci yeneen zone ci yeneen dëkk ñun moom dañ ñoo fàtte mhm. loolu la jàpp te président la république nag ah, ñun de wax dëgg ay sénégal lañ bokk je pense que suñu xeexee ba président jël cinquième au niveau national ci élection exactement fu ñu moom dañ leen fàtte. Mhm. dañ leen fàtte. Mhm. ah mhm. def na fa récemment tournée de ak Kaolack xool leen ba xam dalal na seen xel wala. loolu da doon yàq carburant rek. ah gisuñu lu benn apport ci tournée bu mu def suñu jëkk la ñëw ndu mujj. foofu la ñëw mais je sais que amul lenn ab benn apport bu mu demee amul benn apport boo xam ne ñëw na ci ñun ñu sentir ne le chef de l'État était là non amul. yéen dafa mel ni ay ndaw yu euh, président yoo xam ne la da ngeen a mer. non xawuñu dañoo mer. Mhm. fu mu nekk nii moom ñun moom sincèrement pour dire vrai. Mhm. Euh, l' espoir en tout cas amatul amatuñu espoir quoi sincèrement. amatuñu espoir pour que ñu koy défendre wala di dem ci ay activités yenn activités non. Mhm. fu mu nekk nii on se bat pour le département de Foundiougne ni plus ni moins. ok 88 la mbokk yi 628 84 84. wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 damay ñëwaat ba tey ci ndaw ñi. Mhm. tey immigration bi chaque jour boo xëyee rek ñu naan la gaal bi surux na. Mhm. ñi yegguñ diw nangam faatu na tey da nga jàpp ni utal xëy ñi ndaw xëy na gouvernement bi day taxaw ne des fois. ndaw euh, liggéey am na fi mais dafa xaw a jafe. Hmm. parce que ndaw ñi des fois dañuy dugg ci dara duñ ci qualifié est-ce que tey jàppoo nii tey euh, ndaw yi fu ñu leen war a def wala ministère bi bu ko dooleelee. Hmm. la nga xam ne moo jëm ci immigration bi dina mën a euh, arrière dellu ginnaaw tuuti. xam nga mun nañu mun nañu wax ne état du du moo war a jox. ndaw moo war a jox xëy ndaw ñi. Hmm. mais il doit créer les bien sûr. condition yooyu nag ci la ñuy xaar euh, son excellence le président Macky Sall ou bien son ministère de la jeunesse ou le ministère de l'emploi. Ah, yi ñoom bañ fu ñëwee wax nañ ni cinq cent mille <laughs> euh, tey fu mu tey fu mu toll. loolu ay yéen ñi nga xam ne yéen bokk foofu. loolu ay théorie la rek. Mhm. xam nga nit day wax loo xam ne da ngay xam ne kii li muy wax c'est pas c'est du loo xam ne. Euh, en tout cas yow gisoo ko sur le terrain ñun lu ñu gëm. Mhm. ñu gëm ñun mooy ce qui se sur le terrain. donc ni nga ko li nga waxee sànq vous da nga à la formation. Mhm. formation des jeunes dafa am solo. Euh, mun naa la wax ne ñun am na ñoo xam ñoo amandoo bac. Hmm. ñu ngi dugg nañ gaal ba ils sont en Italie. ay étudiants ou en Espagne. ay étudiants bien sûr. donc euh, récemment dañ doon wax sax am na ñu doon wax sànq sax ni gaal bi dem am na étudiants yi ci bokk. Hmm. donc c'est affaire nekkatul question de de de formation de qualification. c'est une question d'espoir. mais bu ñu lay may jox xëy tamit fekk nga qualifié ci mbir. d'accord xam nga ne su ma la waxee ne am na ay étudiants yu dem am ay enseignants yu dem loolu c'est c'est c'est en tout cas prouvé quoi. yoo xam ne ay nit yoo xam ne euh, jàng nañ ba am qualification mais dañ ko fi bàyyi dem. parce que mhm. da ngay jàng ba am ay doctorant fii xanaa déggoo le regroupement des diplômés chômeurs du Sénégal. bëri nañ fi bëri nañ fi lool. Mhm. di xam jàng nañ ba nekk ay doc ay docteur am seen i ñu ngi fi. di mhm. di chômer. donc c' est pas une question de qualification c' une question de politique. moo des. donc la politique d'insertion la politique en tout cas de mise en place des investissements en tout cas la politique d'orientation des investissements moo moo fi manqué mhm. te loolu war nañ war nañ ci mën a taxaw daar daar su ko defee véritablement li wàññeeku est-ce que yéen seen plateforme bi nekkul mer ngemb waaw <laughs> mer ngembu bon loolu moom yaa ko yaa ko tuddee mer ngembu. ah mais su ma la gisee ngi ngay sànnee xeer nii ci la nga xam ne moo jëm ci projet yi nga xam ne def nañ ko foofu mais euh, am na lu ngeen denc téye ko. ne du ngeen ci du ngeen ŋànk rek te too bàyyi. non nekkul nekkul nekkul sànni xeer si projet yi chef de l'État def parce que man dama magnifier le DAC. Hmm. magnifier euh, le campus magnifier la le port de Foundiougne mais ba léegi amul si loolu ñun ci loolu la ñu nekk. Hmm. parce que su suñ ñëwee inaugural la infrastructure boo xam ne yow amoon nga yaakaar fii nit yi mën nañ fi liggéey mhm. ba deux mille quinze ba deux mille vingt mhm. amul foofu foog foofu la foofu la patience yëpp mhm. ñu ñëw ne la dañ lay jox campus campus boo xam ne ci université El Hadj Ibrahima Niass la bokk ñett la Kaffrine Fatick ak euh, Toubacouta léegi bu camp bu Kaffrine nekk en construction bu Fatick nekk en construction bu Toubacouta laaluñu ko mais loolu du discrimination Bemba suñu waxantee dëgg rek te yàlla tax Mm-hmm. discrimination la. Mm-hmm. ñu jël ñu ñëw di defar ay ay ay ay ay dak dans à Dakar bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi àll bi. Mm-hmm. donc c' est des choses yoo xam ne on doit pouvoir les corriger vite. suñ ko deful véritablement fléau bi day continuer loolu moom euh, c' clair. amul ay ay ay ay théorie ay thèmes yu gars di débattre dans les télévisions et des mm-hmm. loolu mënul téye xale yi. defoon ngeen fi ay conférence de presse ba fi sax annonce fi marche. bu ah. njiitu réew mi waroon ñëw foofu. juste sax ngeen teggi seen tànk. non on était en tout cas Covid 19 loolu c' avant la Covid 19. Ah. Covid 19 moo moo ñu moo ñu bloqué woon moo tax am na yu bëri yoo xam ne sax mënatuñ ko woon def les rassemblements étaient interdits. Mm-hmm. donc justement a tu te rappelles de ça ñu amoon ci ay ay morts yu bëri Karang avait déjà quatre morts euh, ji kii euh, commune de Bassoul mhm. amoon ci ay morts donc c'était euh, ñu ñëw def beneen conférence de presse alerté le président la République par rapport à en tout cas à l'immigration clandestine tey l'histoire nous a donné raison mhm. alors tey maa ngi la wax sànq fan ngeen jëm ak plateforme bi waaye daa mel ni xuusoo de plateforme bi fu mu jëm ndax da ngeen ko tënk ngeen porter seen revendication ci gox bi nga xam ni moom moo nekk ci Foundiougne ak 17 communes yi nga xam ni moom moo fa nekk. Mhm. tey fan ngeen jëm. non ñun fu ñu jëm Bemba euh, je pense que c'est clair fu ñu jëm mooy ñun lu ñu kaas tey président su ko defoon suba ñu arrêté plateforme bi mu jeex lu ñuy kaas nii. mu ubbi port bi. parce que seen mémorandum yi tam maa ngi ci gis. Hmm. promotion cadre yu nekk ci. justement ci Foundiougne c'est très important. Hmm. tey tey je suis au regret de vous dire département Foundiougne 17 collectivités locales hmm? euh, benn ministre lañ am barka démb la ñu ko am Abdou Latif Coulibaly mu nekk euh, secrétaire général du gouvernement euh, ñaari PCA la ñu am ñaar est-ce que ñooñu mun nañu jàppale les jeunes du département pour que véritablement yeneen yeneen département nu ñuy def ak seeni jeunes on peut donc loolu c'est des choses yoo xam ne bokk na ci suñu revendication pour ñu promouvoir en tout cas les jeunes cadres du département de ku mu mën a doon nag dans quelle commune bu mu mën a doon dans le département de Foundiougne nous sommes porteurs mhm. su ko defee véritablement ñooñu xam am naa yaakaar ne ces jeunes cadres qui sont en tout cas dans le département de Foundiougne ne pare nañu pour jàppale en tout cas les jeunes pour mhm. que véritablement fléau bi am dans le département kon seen xeex bi daal dafay wéy ba keroog ngeen di am Euh, li nga xam ni moo di ndam ci wàllu wi ngeen di xeexee. justement loolu moom loolu moom am naa yaakaar ne foofu la ñu jëm. Mhm. parce que waajuñu ko. Mhm. waajuñu bàyyi tey waajuñu bàyyi suba. Mhm. donc euh, menace bu nekk am na am na fi bon coow lu nekk am na fi mais on tient bon. mais Mayakor itam booy xeex day fekk nga dajale ñëpp est-ce que dajale ngeen masse bi yëpp. tey mën a dem ci xeex bi. ni justement xam nga xam nga euh, nu ñu koy waxatee ci wolof nettali. Euh, nga gisal sa bopp moo gën a wóor. Mm-hmm. am naa yaakaar ne suñu organiser waatee beneen manifestation nañ leen invité yéen ñëpp ngeen ñëw gis su ngeen su ñëwee su ngeen ñëwee di ngeen xam ndax euh, lii Foundiougne kese la wala Djirnda kese la wala Bassoul kese la. Mm-hmm. di ngeen xam ne c'est les 17 collectivités locales qui sont rassemblées en tout cas pour l'intérêt du département de Foundiougne te ñëpp adhéré nañ actuellement à la cause. yéen a ngi waaj. bu baax ñun kay duñu a bàyyi. du ñu mos a bàyyi. Mhm. Ah, fekk président de la république recevoir ñu wala mu jox ay institution ferme. Mhm. Euh, li ñuy kaas ni mu ñu mën ko résoudre. Mhm. je pense que ñun waaj mais moom kay déjà rek joxe na instruction yi mu jox ci village boobu pour ñu euh, électrifier ko loolu rek ay instruction la est-ce que du ngeen du ngeen itam puisque itam mm. Sénégal du funjuñu rek itam euh, moo tax ñuy kaas suñu wàll parce que yeneen département yi pratiquement ah, département am na ñoo xam ne waxuñu ñu ngi toog département yi ñu gis daal ñun mm. à chaque fois nous suivons tey suñu ndaw yi ñu ngi partout dans le en tout cas dans le pays mm. parce que am nañu ay enseignants am ay professeurs am ay fonctionnaires mm. donc qui sont partout donc euh, lépp luy xew ci yeneen communes yi nous sommes au courant de en tout cas à la lettre mm-hmm. donc xam nañu exactement li nga xam ne mu ngi mu ngi mu ngi ñun tey on a dem nañu bay bay comparer suñu département ak ak d'autres départements parce que ñun véritablement ndaare la ñu jël ah la ñu jël mm-hmm. le président moo war a corriger euh, tout cas erreur boobu te nous sommes prêts à en tout cas à, combattre pour que erreur boobu wala différence boobu yàlla président de man République mën ko mën ko corriger. parce que ñu bëri dañ ne seen plateforme bi plateforme politique la pour mu pour dégg ngeen ko. Mhm. Euh, ñu ne ay nit ñoo nekk seen ginnaaw. Mhm. daal di yëkkati li ni mel. Euh, bëgg a li nga xam ni njiitu réew mi def na ko ci département bu funjuñ mhm. parce que ay nit ñoo nekk seen ginnaaw ndax loolu lu am la ba pare. ah man de ay nit nit yi nekk suñu ginnaaw loolu yëguma ko. loolu moom yëguma ko. mais yéen a ñu dégg ngeen ko. waaw bon loolu moom mënul ñàkk. loolu mënul ñàkk ay nga crée quelque chose bu am solo. comme man waxuma ko dama ko ah, forcer réew béy. d' accord naa. ay nit ñoo nekk seen ginnaaw di leen jox xaalis ngeen ni euh, yàq. Euh. liggéey bi nga xam ne tey. njiitu réew mi def ak njiitu réew mi ñoo àndoon. ñun ak njiitu réew mi mais ku la dégg nii mel ni ni ay nit yu mer ngeen. waaw mais ñun ak njiitu réew mi. Mhm. ñoo àndandoo depuis 2008 ànd ak moom. mu war mu mu nekk candidat ñu jàppale ko mu gagné. Mhm. mu toog sept ans ñu muñal ko muñalaat ko joxaat ko deuxième mandat. avec plus de quatre vingt pour cent. dans le département jox ah. leen <laughs> de quatre pour cent dans le département de Foundiougne kon kooku. Mhm. nit mënul ñu jaxase ak moom. c' impossible. Mhm. mais nag ñun lu ñu lu ñu laaj lu ñu soxla dañ ko koy laaj. dañ ko koy laaj muñal nañ ko nag fu mu nekk nii mënatuñ ko muñ dañ koy laaj. ni ñu koy laajee nag mooy ñu organiser wu véritablement def ay marche def ay conférence de presse wax waxtaan ak askan bi ñu xam ñun fi ñu toll. Mhm. ci loolu la ñu nekk keneen koo xam ne étiquette boo ñu mën a jox nag amul problème mais ñun moom on continue notre combat. ok da ngeen di continuer combat euh, Mahécor daa mel ni mairie Touba Kouta daf la soxal. loolu moom ça dépendra des ñu ngi la koy wax ñu ngi la koy tuddal <laughs> ça dépendra des populations de la commune de Toubacouta parce que euh, maire moom mais am nga vision bi quand même waaw mais maire moom euh, Bemba maire nit mënu ko def boppam maire kenn mënu ko def boppam nit ñi sax mun nañ la ko bëgg a def mais yàlla su ci àndul mënul nekk donc loolu moom ça dépend en tout cas ça appartient au futur euh, ñun li ñu war a liggéey au niveau de la jeunesse consciente de la commune de Toubacouta ñu ngi koy liggéey ak population bi d'ailleurs euh, lépp loo xam ne euh, yàlla moom la jagleel dañuy sant yàlla jël ko à bras à le corps et population bi aussi lépp loo xam ne yéene nañ ñu ko dinañ ñu ko jox au moment opportun. et justement kii boobu nga kuréel googu nga taxawal. muy mm-hmm. kuréelu ndaw ñi. Mm-hmm. ca tey foofu nga xam ni moom moo jëm ci Toubacouta. Mm-hmm. ndax yéen Covid bi sentiroon nañ leen ak seen i geste sensibilisation bi ci wàllu wi ni mel. waaw effectivement ñun. yéen a woon ci terrain de les premières heures de la Covid ñun def nañu en tout cas euh, nu ñu koy waxee euh, ku nekk li nga yor nga def ko ci. bu ñu ko defee aussi euh, le président de la commission mobilisation Mamadou Senghor bu Medina Sangako donc moo dirigé woon opération yi. Mhm. Euh, dem nañ ci dëkk yu bëri en tout cas def suñu participation. Mhm. ci loolu la ñu mënoon def def nañu ko euh, en tout cas boobu Covid bi di gën a métti. Mhm. donc loolu def nañ ko. Hmm. tey résultat yi ngeen ci am ndax résultat yu am solo la ndax naam Covid mi ngi wàññeeku action yi tey jot na itam ñu saytu. koppar ga nga xam ni municipalité bi génne woon na ko ngir jox ko askan wi fu mu dugg fu mu jaar ndax lépp leer na seen gët. non non loolu moom ñun. ah war ngeen ci am taxaw seetlu euh, itam. am na solo am na solo Bemba mais loolu moom ñun euh, personnellement nekkul nekkuñ ci dynamique boobu. Mhm. ñun ci dynamique bu ñu nekk mooy en tout cas le don de soi. Mhm. ku nekk li nga am. nga apporte ko à la jeunesse consciente apporter ko pour la population de Toubacouta. Mhm. Euh, leneen li nga xam ne nit mu ngi koy def ailleurs aussi wala ci beneen secteur. Mhm. et véritablement ñun loolu soxaluñu bu baax. Mhm. Euh, en tout cas li gën a am solo mooy opposition su amee ci dëkk population yi moo ciy gagné. te am naa yaakaar ne fu mu nekk nii population Toubacouta ñu ngi gagné ci opposition bi nga xam ne am na am na dans la commune. ñu bëri ngi dem ci waa de. waaw mënul ñàkk <laughs> ci ci ci euh, ci Sonko. waaw mais loolu c' pas communal mais c' est départemental. xam nga li ko waral euh, gis nga le premier départ. Mm-hmm. kooku moo nekkoon le président de la commission communication de la de la plateforme départementale. Mm -hmm. c' est un en tout cas c' est un grand responsable de à Passy. Mhm. qui est très très respecté Baye Niass. Mhm. ku am solo la. Mhm. ku nit ku. ci waaw ci ñun la bokkoon nit ku yéwén nit ku participer également pour le développement de la PEDIF. kon kooku tey su demee ñun naqar lañ ci am. Euh, mais nag c' prévisible hein parce que président ñun yàgg nañ di ko alerter depuis novembre ñu koy alerter di di bind di ko envoyé te amul réaction à après Baye Niass a a encore d' autres le maire de Bassoul il est parti. ah le principal du CM de Djirnda il est parti ak ñeneen donc yooyu yëpp. Euh, Sonko day profito ci en tout cas ci problème yi am dans le département de Foundiougne pour rocci ay nit. Mhm. mais c' une euh, stratégie politique la. Mhm. mais nag président moo war a indi une réponse politique par rapport à ce qui se passe dans le département de Foundiougne. réponse politique Abdoulatif Coulibaly bu ñu nommé ministre secrétaire général gouvernement xëy na loolu dal na seen xel itam. déedéet loolu moom dalul suñu xel loolu moom nekkul loo xam ne euh, war na mën a régler les problèmes du département de Foundiougne. Mhm. Euh, c'est vrai que ñun du ñu du ñu euh, yàqal kenn. Mhm. du ñu xalabal kenn. du ñu soxoree soxoree nit aussi. Mhm. parce que Abdou Latif Coulibaly ku ko xam nga xam ne c'est un haut cadre de l'administration. Mhm. c'est tout à fait normal mu am poste bu mel noonu wala bu ko ëpp. Mhm. Euh, waaye nag euh, politiquement véritablement on a besoin en tout cas du sang neuf dans le département de Foundiougne. su ma la déggee mooy ñooñu ñëpp dañu war a xaar. non waxuma waxuma ñu xaar de du loolu laa wax de même pas <laughs> waxuma ñu xaar mais que ñu responsabiliser en tout cas les jeunes cadres du département de Foundiougne loolu moom soxla nañu ko. Mhm. ñi fa nekk est-ce que fësal nañ seen bopp itam. non ñun ñu am ay jeunes ay maires yu nekk ay cadres ñu am ay responsables politiques nekk ay cadres dans la plateforme y a beaucoup y a combien de cadres. Hmm. donc c'est des cadres yoo xam ne dañu war a mën a responsabiliser ñoom aussi ñu participer ci développement commune bi. parce que hmm. euh, génération dafa am. génération bi nekk ci département bi instant wala génération bi nekk au niveau national politique bu fi nekk tey c'est il faut responsabiliser les jeunes les jeunes cadres du département de Foundiougne mm-hmm. pour que véritablement ñu mën a waxtaan ak nit ñi euh, discuter ak nit ñi mm-hmm. insérer les jeunes donc c'est primordial pour vous quoi c'est primordial pour nous mm-hmm. c'est très primordial pour nous et nécessité bu rëy la ci ñun alors tey euh, créé ngeen ko institut li a élection locale yi du indi benn chamboulement divergence ci yéen ci yéen yi nga xam ne yéen plateforme yi déjà rek dëkkale nañ leen foo xam ne dañu bari dañ jàpp ni plateforme bi plateforme politique la. Hmm. locale moo leen tax a jóg ngir sanctionner équipe bi nekk foofu tey lan ngay tontu si ñoo ñooñu nga xam ne ñu ngi agité loolu. waaw xam nga xam nga plateforme bi ñu ci nekk ñëpp ay responsable lañ seen commune. Hmm. avant plateforme bi ñoom ay responsable lañu woon seen commune. di fa liggéey di fa di fa dóor bu hmm. baax. je pense que ñooñu suñu ñëwee ñoom ñëpp ñu fédéré seen force. mënul mhm. ñàkk mu am une peur extérieure mënul ñàkk. loolu moom kon est nekk li ngay wax ni loolu moo nekk di am. peur extérieure. Mhm. waaw mun na am loolu kay mënul ñàkk. loolu mënul ñàkk mais la plateforme là du parti ñun tous ci ci grande mouvance présidentielle la ñu bokk. Mhm. donc tey dañuy déglu njiitu réew mi ci décision yi nga xam ne moom lay jël. mais moo wax la Mbemba. Euh, tey pour revenir un peu sur Toubacouta encore. Mhm. Euh, su la waxee la commune de Toubacouta Toubacouta village si boppam. Mhm. pavé sax mënu fa am pavé. pavé Toubacouta su tawee. Mhm. bul ñëw. xanaa Promoville jaaru fa. <laughs> Promoville moo tax ma moo tax ma ne la ñun ñun dañ ñoo fàtte. Toubacouta tey su. mais mais Mahécor itam maire am ngeen ko. d' Pape Seydou Dianko moom mooy seen maire. justement est-ce que tey maire bi tam pavé yi nga xam ne tey ñu ci bari tey pavage yi. Hmm. seen maire yi ñooy initier ñu ñëw fekk si leen hmm. ci ak pakaseen bi ak lu ñu joxe mais est-ce que tey seen maire taxaw na leen wax lu am. waa loolu loolu loolu ba léegi euh, lu ñu war a mën a disserter la. Hmm. mais wax naa la sànq ne nu on on mène pas un combat de personne. même boo leen mënewul mu combat de personne mais mairie ngeen yor itam mooy diriger Toubacouta. d'accord naa ceeg d'accord naa ceeg yow. mais commune bu mel ni Toubacouta tey tey soo ñëw dans le département de Foundiougne Toubacouta du point de vue tourisme. Mhm. Toubacouta su moo jiitu. mais malheureusement Toubacouta nord daal mën nañu wax tourisme buy dox mais nawet su tawee Toubacouta mënoo ci mënoo ci bouger. day taxaw te dëkk bu ñu war a mën a pavé la. Mhm. Hmm? Euh, ndox mi aussi day manqué. Euh, extension courant bi du ñu war a mën a defar marché moderne amul à Toubacouta. Mhm. donc c' est des yoo xam ne euh, le quai de pêche de Missirah. Mhm. la communalisation de Bettenty ah et de et de mhm. yoo xam ne dañu dañu war a gaaw ci yooyu euh, defar je pense que loolu. état war na ci mun a mun a a def dara. mais du point de vue administratif aussi vraiment mun nañ ci war a doxaat. bu baax su ko defee changement bu ndaw am la ñoom baatoo. de santé. centre de santé sax amul daanu ñambaatu je des choses yoo xam ne euh, Mbemba kenn mënu ko weddi kenn mënu ko weddi. ñombaate bu ñuy dégg fii yëpp chaque chaque chaque jour nga dégg ko. waaw <laughs> ñu ngeen eh, waaw. centre de santé sax amuñu ko. loolu doy na waar je vous le jure. je ay poste de santé yoo xam ne doo gis sax eh, infirmier donc c' est des yoo xam ne euh, war nañ mun a liggéeyaat. Mhm. Euh, dëggal dugal ay investissement en tout cas dans le investissement en tout cas dans. dans tout le département pour permettre en tout cas aux populations vraiment ñu mën a sentir seen bopp ci ci gouvernance Macky mhm. dafa des daal ci yéen seen gis-gis non non nekkul nekkul des mais ñëwul c'est ça la réalité ñëwul tey on se glorifie du pont du pont de Foundiougne vraiment quarante deux milliards et poussière dañ koy dañuy féliciter ndam la de ndam bu rëy dañuy féliciter son excellence le président Macky Sall mhm. mais soo defee investissement investissement bu toll noonu aussi euh, jëlaat ay investissement def ci. dañ ko mhm. yëpp da nga ko war a yëpp mu rafet su ko defee vraiment population bi am ci lu ñu jàpp am fu ñuy xëy ak fu ñuy gont loolu foofu lañ koy xaar tali yi aussi véritablement mu fexe ñu ñuul mais raaraan bi dafa sonal nit ñi que itam amul ñi nga xam ni homme d'affaires yeneen ñi nga xam ne ay borom barke lañ ñu mën fa génne seen mooy itam tabax ay entreprise pour ndaw ñi wala jéem a sukkali gox bi bañ a xaar lépp itam ci état yéen bu ngeen naree xaar lépp ci état mm. dina yéex de justement loolu moom am na solo am na solo lool mais yooyu yëpp ay négociation la ak ay partenariat yow xam ne peut-être collectivité local yi ñoo ko mën a mm-hmm. lijjanti ji ak ay justement mooy seen maire bi tey est-ce que plaidoirie bi tey mën na ko porter waaw mais am wala ngeen yéen ce que seen lii jot na ko maire bi jot na lii <laughs> parce que depuis sànq ba léegi bëggoo tudd maire bi non du bëggoo wax dara ci maire bi ndax lii nii plateforme bi mais jot ngeen jot na ko mais plateforme bi du plateforme contre maire déedéet comme tey moom ci département bi la bokk mm. est-ce que tey jot na lu mel nii tey loo xam ne mun na ko yeggee waaw euh, mémorandum bi de Mbemba su ma la waxee dans tout le département mémorandum baa ngi fa commune boo dem fekk ko fa parce que ñun bu ñu koy def en tout cas tout le département était représenté bu ñu paree on l'a multiplié joxe ko. Mhm. barke dem rek on l'a donné au maire de Foundiougne donc c' est quelque chose boo xam ne. référentiel boo xam ne pratiquement ñëpp jot nañu ko. Mhm. Euh, ça dépend nag ci ku nekk euh, ni koy utiliser usage bi nga ciy def. Mhm. loolu moom du ñun ñoo orientation ñun ñoo koy defal. Euh, sur le plan culturel. yow soose nga xam nga xam nga la culture mandeng hmm. loolu ñoom baata pratiquement soose dafa am solo hmm. dafa dafa dafa am doole hmm. euh, on doit pouvoir ñu améliorer yokk la culture xool nuñ koy nu nuñ leen di jàppalee parce que soo a des artistes comme Boudos de Betenti ah koo xam ne vraiment ñoom baata connexion la yor mu ngi góorgóorlu euh, mais jusqu'à aujourd'hui euh, soutien amul soutien boo xam ne mun nañ permettre ñu produire nekk euh, sur scène mhm. ah, defar ay cassette defar ay vidéo yoo xam ne véritablement ñëpp dinañ ci jot euh, Ibou Nding aussi de de Toubacouta Dindi Ndiolo kooku mhm. soo ñëwee foofu di nga di nga di nga sa bopp SS mhm. ah, euh, de Medina Sangako en tout cas Nassali bu Betenti aussi vraiment pour les Kagnaling Toubacouta mm. également mm-hmm. donc ñooñu ñëpp dañ leen war a mën a jàppale ñoom rago euh, ñooñu du point de vue culturel même si c'est une compétence transférée mm-hmm. war nañ mën a xool nu ñu leen di jàppale pour que véritablement ñu mën a améliorer seen position mm-hmm. mm. kon tey euh, bu ma la déggee mm. yéen a ngi wéy si seen xeex bi ba kereen ngeen am gain de cause parce que euh, émission bi nga bëgg a ñëw jeex mais tey Mayakor say ambition yaa ngi naan collectif bi di jéem a teg plateforme bi mais am nga loo xam ne tey dëgmal nga ko COJER nga bokk itam APR nga bokk. Mhm. am na loo xam nga bëgg nga ko lan la yéene bi tey nekk giite mairie bi. même buggul même bu fekkee ni bugguloo ko wax. Mbemba eh, loolu moom yow yaa ko wax mairie moom yow yaa ko wax euh, plateforme bi aussi euh, jiite wu ko plateforme bi nekkul. Euh, ñaari commission la amoon la commission communication bi Baye jiite bi dem bi dem Pastef ma jiite la commission scientifique mhm. donc euh, ñun ñëpp ay boole vraiment liggéey avec les cadres comme Ibrahima Diop de Karang Lassana Sarr de de de Niodior mhm. euh, Ndoura Faye bu Foundiougne Sidi Diop bu bu Djilor mhm. ñeneen ñu bëri ñoo xam ne c'est des c'est des c'est des hauts responsables en tout cas de la de la et dans le département de li ma la bëgg wax mooy personnellement nekkuma ci Euh, loo xam ne man maa wax ne lii laay nekk. c'est personnel quoi. donc donc non non non non c'est pas une question. maanaam nekkool si loo xam ne personnel la. justement population mooy choisir population mooy wax ne diw la ñu bëgg mu nekkal ñu fii. Hmm. donc loolu euh, c'est pas à moi de le dire. Hmm. ñun lu ñu war a wax mooy ñu xeex pour l'émi contre l'immigration clandestine xeex pour le manque d'emploi. Hmm. xeex pour en tout cas ñu euh, ñi am revenu. mauvaise politique d'emploi bi am aussi ñu fexe loolu ñu ñu corriger ko. mais justement yow yaay président jeunesse consciente. bu Toubacouta Toubacouta. est-ce que tey war ngeen jarul itam ngeen def descente ngir waxtaan ak xale yi ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci wàllu mbëkk mi. waaw mais loolu moom euh, en tant que fils du terroir. Mhm. ñu ñu euh, xam exactement la conscience des gens. Mhm. nekkul théorie kese mooy tax nit ñi bàyyi. loolu moom je vous le dis. Mhm. nekkul ne théorie kese nekk ci télé yi ak ci rajo yi di wax wala wàcc si le terrain takk jël chaîne à musique wax ak nit ñi mooy tax nit ñi bàyyi. non il faut des réponses concrètes. les réponses concrètes mooy nga def des investissements yoo xam ne day permettre jeunes yi ku nekk nga xëy sa kër yaay ak sa kër papa dem liggéeyi wàcc. Mhm. weer su dee nga yaakaar benn cinquante bala wala benn soixante mil boo xam ne da nga koy def ci kër gi. loolu moom mën a tax xale yi mën a au minimum ñu bàyyi ñu bàyyi gaal yi mais dem di wax ak ñoom. Mhm. te weekend dimanche su jotee nga dugaat oto ñibbi si di xëy di wàcc. Mhm. non loolu moom vraiment euh, am naa yaakaar ne loolu du loolu mooy solution. am loo xam ne bëgg nga ko wax te laajuma di la remercier rek loolu rek laa ci am parce que fu mu nekk nii pratiquement émission bi gàtt na lool. Mhm. gàtt na lool mais am naa yaakaar ne. Mhm, dinañ fi ñëwaat euh, dinañ fi a yaatal. Mhm. Euh, li ñu soxla rek mooy. investissement yi. ñu dugg ci département bi. investissement yi nañu dugg bu baax ci département Foundiougne. tey la commune de Karang. lycée de Karang moo jël premier au niveau régional. te tabaxuñ sax lycée mixte moo fa nekk. donc c'est des choses yoo xam ne on doit pouvoir en tout cas dimbali nit ñi. ci ay investissement dimbali nit ñi stade municipal stade municipal Foundiougne bi nga xam ne moo mooy mooy chef lieu euh, départemental amul stade municipal bu baax Toubacouta amul stade suñu suñu terrain bi dañ ko miiree rek amul stade mel ni da ngeen reflet xam ne dañ leen war a waxal non c'est je vous dis yoo xam ne mënoo ko gëm quoi mais soo ñëwee soo ñëwee à Toubacouta tey terrain bi dañ ko miiree amul sax amul sax tribune donc c' était pratiquement dans dans toutes les communes loolu moo fa nekk à l' exception de Passy et de Sokone. Mhm. donc on pouvoir en tout cas ñu corriger loolu. Mhm. loolu ñu ngi interpeller directement monsieur le ministre Matar Ba. Mhm. bi nga xam ne il nous avait reçu vraiment ñu waxtaan waxtaan bu am solo. am nañu yaakaar ne véritablement dinañu jàppale ci ci ci côté boobu. Euh, leneen li leneen li nga xam ne bëgg naa ci yokk mooy l' emploi des comme ni dans le département de Foundiougne mhm. le ministère de la jeunesse moom ñun sentiruñu ko à Foundiougne mhm. le ministère de la jeunesse doit pouvoir en tout cas recevoir les jeunes du département de Foundiougne mhm. chercher avec eux benn solution boo xam ne dina permettre jeunes yi ñu am ci lu ñu jàpp loolu moom soxla nañ ko ci moom bu baax son excellence le président Macky nag ñun plateforme bi la PEDIF ñu ngi koy xaar bu baax euh, déposé nañ pour mu recevoir ñu jusqu'à aujourd'hui il a def euh, corps am. Mhm. pour que son excellence le président Macky Sall puisse la plateforme. Mhm. balaa yeneen départ di am. parce que loolu moom c'est très clair. Mhm. waaw alerte nañ defuñ dara. Bagnès est parti le maire de John John War euh, en tout cas kenn suñu keneen keneen dem aussi dañuy xam ne c'est de suite logique. bu mu leen bett waaw du waru bett. ñu ngi lay sant di la gërëm may kon maa lay gërëm bu baax Bemba di mhm. gërëm population bi yëpp di mhm. nuy waa département Foundiougne yëpp di leen mhm. remercier bu baax euh, di remercier en tout cas la commune de Toubacouta euh, vraiment di profito ci occasion bi di leen sant bu baax di leen gërëm di sant itam mbokk internet yi mbokk auditeurs yi di sant itam ay dara moom mi nekkoon ci xarale gi jox leen dig daje ba beneen dimanche incha allahu rabbi